Tivaouane TV di biddéew bi leen di mbokki jullit yi asalaamaaleykum mbokki taalibe yi ngi fii ci Tivaouane ci sunu kanamu sëriñ sunu wéyjur sëriñ Abdou Aziz Al Amin mi nga xam ne moo yor kaddu famille Seydi Hadj Malick Sy radiyallahu ñi ngi ñëw ci wetam taataan ay kàddoom jëmale ci xew-xew bu mag boo xam ni sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu moo ko fi bàttale woon ñu jàpp ci ba nëgë ni xew-xew mi dëgg malaat mu yëkkate kàddu ci turu seen Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum xalif général Tidiane ak kaddug njaboot gi yépp mbokki jullit yi ñu déglu sëriñ bi mu am lu mu wax jëmale ko ci ziar général bi bi nu dëgmal na mu bëggee mu ñëwee ni ak nan ñi war a dikke ak organisation bi nan la demee ñu déglu sëñ Abdou Al Amin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalq sayidina muhammadin almabuusi rahmatan lil wa ala alihi wa asaabi ajmain waman ihtada bi hadiyim ila yawmi diin yéen mbokki jullit yi ñuy déglu ak mbokki taalibe yi ñu ngi leen di fàttali rek la fàttali leen lu ngeen fàttewul te moo di بيغا خامني فاس نينكو يين ان شاء الله داف تي تيواون تي دانكو داف ات مجد ني جاغلل كو سيد الحاج مالك سي ak njabootam gu tedd gi at mu jot ñu depuis 1930 yàlla di ko màggal ñu di ko def ba suñu joon yàlla yi tey ñu di leen ko fàttali rek fàttiwu leen ko sax waaye nag la rekk pour ñu wax leen ni ku ci bokk rekk war nga ko mën a fekke soo amul ngànt ngant nag bari façon waaye ku amul ngànt lu ko jar daal bëgg nañu le vingt six mars moom lañu ñu fas yéene def ziar général bi ñu bëgg nag mbokki taalibe yëpp fannoo ko boobu le vingt six ñu mën a teew Tiwaawan nañ ko daan defe ziar Seydi El Hadji Malick Sy ak ngëneel ya nekk ci ziar yëpp ñu di ko wax Sëriñ Babacar Sy radiallahu anhu bi mu fi toogee bu ngeen masaan ñëw dana leen di wax ziar général ngëneel bi nekk ci ziar nit yàlla bu mel ne Seydi El àgg fi mu àgg ci martaba ku ko ziar li ngay am yépp ci yiw daana leen ko wax di leen ko limal benn par benn ni boo ko ziyaaree rek daa ko am incha allahu mu bëgg nag bi yoon ñëw jëf ko ziyaar spécial ziyaar boo xam ni kuy taalibe rek bëgg nañ nga teew Tiwaawan déglu kàddu xalifa bi déglu la mu di wax di ziyaar boo xam ni itam xam ngeen ni daanañ ko def bu yàgg loolu kenn du leen ko wax dangeen daan ñëw di ko fekk moo ko rakkam yu baax yi ñu di leen wax ni leen ah ziyaar bi day ku amul ngànt bu ko jar ëpp naa tardé di leen ko faram benn par benn waaye bokk na ci rek la mu leen daan wax ku ñëw ziar si ko li ngay am ci nitu yàlla bu day ni Seydi El Hadji ah, ñu bëgg nag bii yoon mu nekk ziar spécial boo xam ne bëgg nañ daal ku amul ngànt bu ko jar nga ñëw fekke si ko lañ daan wax ci yiw yëpp nga am ko ngeen ñëw teewe ko na ngeen ko daan teewe ba le mars bii di ñëw lañ ko fas yéene def fii ci Tivaouane mu daan leen wax ngeen li nekk ci ziar si wali bu mel ne Seydi Hadji Malick waaw léegi nag nga di ca boole moom ci bopp moom mi leen ko daan wax di ci boole ñaari rakkam yu baax yi Seydi Alxaaji Mansour ak Seydi Alxaaji Abdul Aziz benn ngëneel nga daan am léegi nag danga am ñetti ngëneel ñu di leen ñaan nag kuy taalibe rek bu bés baa nga teew te kat dinañ wax ni ku xee koo xeeb bésam yaa ko tooñ koo xeeb sëriñam yaa ko tooñ koo xeeb soxlaam yaa ko tooñ ñu ba nag si bés baa ku amul ngànt bu ko jar na nga ñëw daana leen wax ne ku ko ziar ci bés boobu bu ëllëgee euh, ëllëg bu ñuy dekki xol yeey wow yow sa xol du ca bokk kon nag ñu ngi ñaan taalibe bi ñoo fekki si ko ñaan def ko na ngeen ko daan defe te ànd ak yar bi ziar àndal yaru diine ziar nit yàlla ngi leen koy yëgal ngeen bàyyi ko ci seeni poche bu dee gi jigéen ñu bàyyi ko ci seen nafa bu dee xale yi noonu bu dee ndaw ñi yéen itam noonu eh, xam ngeen ziar bi ni mu daan toll tabaarkallahu ak boo ko ziaree la ngay am ci xeeti yiw daana leen ko wax su ko defee nag kon ñu ngi leen ko yëgal di leen ñaan bu bés baa ko am ngànt lu ko jar da nga ñëw teew fi kamtalaayu la nga teew rek am lu gën adduna euh, ak li ci biiram nga defee nag ngeen fannoo ko léegi na ngeen ko bàyyi xel 26 euh, mars ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax euh, mi ngi leen koy yëgal bu baax a baax a baax famille bi yëpp danañ fi teew famille Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu anhu ñoo teew ndax boobu ziar ci ñoom kon nag bu baax a baax yéen nañ ci jàmm te bu amee itam yàlla na rafet su rafetee itam yàlla nañ ko jëriñoo ñu ngi woo ñépp nag bàyyi yuñ kenn góor jigéen mag ak ndaw dégg ngeen ndigal li jóge ci sëñ Abdou Al Amin mu yore kaddu sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum xalif général de Tidiane di woo bépp taalibe ndax ren siyaar général bi nga xam ni mi ngi am le 26 mars dafay tombeek soixante ans wu sëñ Babacar si ci biir suuf 1957 2017 sëñ bi nag nee na ku amul ngànt lu wér na nga ñëw ndax sëñ Babacar waxoon ni na ngeen fonk juróom yi ma leen di bàyyeel. fonk leen seen diine fonk leen seen liggéey fonk leen seen daayira fonk seen tarixa waaye fonk leen yoonu Tiwaawan yoonu Tiwaawan a ngoog kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñi ngi xaar ñëpp di ñaan képp koo xam ni da nga yor oto di indi taalibe yi nga def ndànk te dëppoog li nga xam si moom la service d'ordre bi di wax loolu mooy kàddu yi nga xam ni sëriñ Abdou Aziz Al amin yëkkati na ko jëmale ko ci ñi nga xam ni ñoo war a ñëw ci charge général bi nga xam ni mooy la am le 26 mars 2017 fii ci Tivaouane. TV di biddéew bi leen di gindi ci xadaratu ak tijaaniya Tivaouane télévision la lumière de la tijaaniya